réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn jaay nu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu jaam. amatuñu droit di wax waxi parce que la CDAO a décrété à ce que le parti est dissous amatuñu droit di wax amatuñu droit d'inviter ou waa sur le plateau télé parce que ce parti est dissous mhm. je n'ai pas de problème avec les personnes mais j'ai des problèmes avec les principes man du suis pas man du ma waxati ci wa parce que ce parti là est dissous mhm. deuxième chose parce que le parti est dissous quand mhm. on parle de Goumsabop, quand on parle de APR comme on parle de Thierno Al Sansal avec la République des valeurs Comment on parle de Pape Diouf avec son mouvement les serviteurs mais comment on parle plus de de parce que ce parti est dessous, légalement et sur le plan administratif ce parti je me suis deuxième chose aussi maintenant, je ne vois plus la pertinence que nous sur sur Sonko non il est temps que maintenant qu'on tourne la page. ah mais mais Bamba non. Bah. il faut que xam bah, bah, il faut nga xam il faut que xam il faut que xam un acteur politique. non il faut que il faut je ne peux plus comprendre que Nyom Nene, Sonko n'est plus le plan maintenant ils sont passés au plan B c'est moins Faye que nous débattons si Diomaye fait ce plateau télé et qu'on ait de débattre sur Songo. parce que Sonko nous ñuy débat si moom débat en tant qu'un potentiel candidat dans ce pays mais vu que nous sommes, n'est plus candidat quelle est la pertinence de débattre sur Songo maintenant quelle est la pertinence Giar kontaanee jox cër mbokk àdduna Giar kontaanee jox cër mbokk internaute c'est la bon TV kon a mbokkum réew mi ci seen chaîne la chaîne de la vérité ci sen chronique comme ni len koy defalee sa suné ci actualité réew mi mais bala no sori rek dañuy wax bak bi doolay jën ndox la saxar ray la mais doolay site internet chaîne YouTube abonnement la aimer commentaire et partager xamna ni yene gi ci mais gën len ci nek ndax li len ko waxé rek doolay jën ndox la kon nak gën len a abonné di gëna a partager vidéo surtout di joxe sen xalaat ci commentaire yi ndax dama koy soxla di wax ne rek ku am ñaari junni yoo maye mayal ku la neex waaye soo bëggee dégg dëgg jàppal c'est le bon TV oto nag lu mu xaj-xaj ñuul ma yaay bu xaj ci di bëggee bépp kuy bëggee selebon le bon TV rawatina nag Bouna Sarr l'international borom je réclame un million d'abonnés pour c'est le bon TV de Kona le véridique Bouna maa ngi lay bëggee di bëggee ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi commentaire ci chaîne bi maa ngi lay maa ngi leen di topp yéen ñëpp di rafetlu seen i xalaat dee leen gën di commentaire tey nag ma laaj leen mer bi di gën a taqar naa si ci réew mi laaj leen ma ko parce que kii ma leen tegal noonu ci kanam xam ngeen ni dafa mer waxit ku mer la wax waxi nit ku tuuti la wax moo waral tey may def vidéo bii Video bu gatt mais bala no sori damay nuyu sama mak sama xarit Cheikh Ahmadou Bamba borom global excellence Group, fële parcel Parcelles Assainies unité 22 villa numéro 244 borom institut au métier de l'économie borom arène de sécurité borom nit di service domou nday pap Modou Fall borom Diourbel ma ngi lay bëggee. gars nak dañuy dugg directement ci waxtaan bi dégg na Cheikh Ahmadou Bamba nga tudd journaliste Sen TV dañuy waxtaan rek ci xel quoi xamna bi ngay wax da nga mer te ku mer du mousse motax xamna ni melo nonu sax peut être du sa jikko mais Cheikh Bamba yow tamit ah ci sa trondo ah xam-xam gam gamu gamu tek, waro waxe ni mam Bamba yow tamit ki ngay ki nga nekkal sax ngi nan la li ngay wax hmm? amatu ñu droit invité wa Pastef ci télé ñu droit di tuddu Ousmane Sonko ci télé lool mom ban loi la <laughs> man de xaw CDAO amé ni doole décision CEDEAO amoon ni dollars na ñuy doole ci Sénégal mais chaque jour on dort on se réveille il y a des nouveaux dossiers chaque jour rek job mi daal du wess. waaye nak dama bëgg nga xam ma Bamba réew mi dof fanaanu fi Ma Bamba réew mi dof fanaanu fi li sun papa Kéba Mbaye daan wax Bo nawol sa bop nga nawlo ñi lay déglu nawloo ñi lay seetaan nawlante ñun nii la fi Pape Ndiaye def moom it barki démb gént ay géntam génn di ñu wax ay waxi dof parce que nit ñaa ngi koy suivre mu dem ba foog ni moom moom nit ñi naan ñay opposition bi ñoom ñooy financé gaal te opposition buy financé gaal waa xanaa daa fekk réew ma nguur ga la mu war a def defu ko ndax même bu doon li ngay wax dëgg la incohérence yi ci nekk mooy askan wi su fekkoon ni tey tout va bien wala boog jeunesse bi am nañ yaakaar ci réew mi mais kenn ñemewu leen di leen financé mm, pêcheurs yi tey bu amoon yaakaar ci géej gi mais du ñu yomb financé naa da leen bàyyiloo seen géej gi di leen yóbbu ci ci ci ci ci Espagne wala di leen di leen bëkkiloo mais loolu yëpp échec nguur gu bon moo tax peut-être keneen di mën a jël ay financement di ko jox ay ndaw ñuy di leen encourager pour ñuy génn réew réew mi bu neexoon duñ ko génn tey waa États-Unis gii kan moo ñemee naa da nga leen financer pour ñu génn États-Unis dem fan dem fan dem fan donc yoy même bu doon deug la sax ay wax waxi dof la waxu maanaam wax ji mo teggul du nek legui nak yow it sa wax ji dafa nuro wax waxi pap ndjay ji wax yi soxor nga fi wax yow pap ndjay sax mom day jël bop jema lewal xam nga peut-être jema lewal li mi def di jema use nit ñi wax yi dof parce que da ngeen nit ñi dañ leen di deglu ba ngeen fogné ne dañ leen complexe chaque jour ma wax leen ko mais yow mom ma xamul lan mo la pousser pour nga wax kàddu yu tuuti parce que yow yaa ngi noonu bokkoo ci ben parti te ñu ngi lay inviter ngay à xaw comme chroniqueur nga xaw journaliste nga mais pourquoi d'interdire des gens de dire leur opinion parce que sen parti dañ ko dissoudre mais loolu c'est pas intelligent mon frère interdire à des gens ñu invité leen ci ay plateau de télévisé parce que parti bi ñu bokkoon dañ ne dañ ko dissoudre mais kañ le ba pare mu naan di CEDEAO fa jël décision mais kañ le décision wu CEDEAO amé ni doole ak importance ci Sénégal c'est pas c'est pas la première fois CEDEAO di di di wax ci ben ben mbir fi ci Sénégal Karim Wade saisir na fi CEDEAO jox ko deug nguur gi na amul pourquoi décision bobu defo ci won comme ni Khalifa Sall saisir woon na CEDEAO ñu jox ko deug nguur gi ne duma ko appliquer est ce que décision wu CEDEAO boobu mais dëggaloon nga ko comme ni parrainage bi tay ñuy wax ba ngay wax ba yëkëti sa dënn mais CDAO dafa ne jaaduwul teguwul yoon. nguur gi ne du ma ko def mais tey CEDEAO jël na décision wala boog joxee na xalaatam saisir nañ ko mu joxe xalaatam ci injustice bi ñuy teg usman Sonko mu dëggal ko léegi kon kenn waratul wax waxi Ousmane Sonko parce que waxi CEDEAO moom téere la arxuraan la kenn mais même sax CEDEAO bu ne Pastef dañ ko dissoudre jaadu na lu tegu yoon la mais dissoudre les personnes membre yi nekk biir Pastef mais décédé mënuñ leen décédé te seen i liberté CEDEAO mënu ko jël ku dul CEDEAO mënu ko jël mais loolu c'est pas la peine de chercher de midi à quatorze heures sa aajuwul ngay jàng wala ngay doon journaliste wala soi-disant chroniqueur pour mën a comprendre loolu ma Bamba que ni même bu fekkee ni CEDEAO waxam alxuraan la léegi ci Sénégal mais CEDEAO passif la dëggal dissoudre bi ñu ko dissoudre la lay lay lewal mais la les personnes doomu aadama yi nekk ci biir passif qu'est-ce que ça leur concerne léegi ba kenn mënatu leen kenn dafa ne li mu wax dafa garaaw kenn amatul droit la wax xam nga bu ne man sama xalaat bu noon ne ah man sama gis-gis jàpp naa ni ne Bamba dafa ne kenn amatul droit invité passif wala di wax waxu passif ci plateau yi kenn amu waratul tudd turu Ousmane Sonko ba ne moom dootu ko def mais dootul débattre ci Ousmane Sonko mais li ban façon ban façon nité la ban façon doomu adama la li ban façon wax la mais des sénégalais des sénégalais waa lan moo waral sabassi fay bi mu jëlee décision jox Ousmane Sonko deug ci jaay doole biñ ko jaay doole ci ay fils de parrainage muy décision justice bu dé defe naa justice mo la tax di wax parce que CEDEAO cour de justice la comme euh, statué na ci mbirum Sonko ci lu négatif yow dootoo tuddati doto ñu invité ti wa passif wa légui suñu justice su réew bi juge jël décision nguur Sénégal administration Sénégal ne duko def légui lool lan nga ci wax mam Bamba <laughs> mais gaay ñoo xorobu mais il se croit intelligent dañuy jéem honnête honnête lu di jéem a xam-xam la jaay nit ñi xoma il insulte notre intelligence mam Bamba arrêtel légui ñu ñëw ci euh, Ousmane Sonko waratuñ ko parce que lan parce que dañ ko tecc ci injustement mais tourando Cheikhoul Khadim privation de liberté 7 ans 7 mois 7 ans de privation de liberté tay mom moy Cheikhoul Khadim Rasoul donne li ci Nelson Mandela 27 ans de prison amaana ñi ko doon def dañoo bëggoon ñu fàtte ko dëgg la nag ñi tëj Ousmane Sonko dañoo bëgg ñu fàtte Ousmane Sonko ndax ñi jëloon Cheikhul Khadim jële ko fii yóbbu ko téye dañoo bëggoon ñu fàtte ko waaye ba mu ba mu dellu see la la ko nit ñi gën a yëkkatiku tey la ko nit ñi gën a xam tey ña ko doon bëgg ñu fàtte ko seeni sët dañoo jébbalu loolu mooy dëgg dëgg la nag Nelson Mandela boo gisee ñu teg dañoo bëggoon li muy xeex ak li muy woote ñu suul ko ñu fàtte ko comme ni ko Moustapha Diakhaté waxee dañoo bëgg fii ak cinquante ans kenn dootul jurati ku mel ni Ousmane Sonko mooy lépp luy nuru lu mel ni Ousmane Sonko nañ ko effacé lépp luy nuru lu baax nañ ko ray ndax seytaane loolu mooy def loolu mooy mission ci kaw suuf mooy lépp lu mën a baaxal lu mën a jagal lu mën a defar dundinu askan wi jëmale leen ci seen borom seytaane ngay jàkkaar loolu mom la waji di wax rek ahmadou nee nit ki mom bu la bañé ta bax rek tax mu ban lo gëna bax gën la bon kon baxal loga gëna bax labon mu gën la bon ndax ku bon du bëgg ku bax Ousmane Sonko ku bon mu ko bëgg te yow mi day wax dëgg yalla waxi soxor dong nga fi wax ak waxi iñam ndax nit ki ñu tuñ ko tuddu ndax choisir na ben candidat ci biir partem candidat bu nga xamni tay pour collecter parrainage la moom ba tey taxawul officiellement ne nekkatuma candidat diw laa jiital dafa ne diw lañu tabb ngir mu dem récolter parrainage citoyen parrainage populaire pour wane sunu dopp wane boppam bi ko nguuru as nguuru Sénégal bëgg a xañ mu wane ne askan wi moom la àndal te parrainage boobu noonu sondage la ñu bu ko ko xañ ci ay technique ak ay calcul politique moom it mu teg ay calcul politique ba mën koo def ñu war koo tàccu te ba boobu yëpp mu ngi ci ay loxo.

te jappé sénégalais ay nit yu tekkiwul dara ngeen balma vraiment c'est malhonnête c'est petit de votre part li nga bëgg wax mu jaral la nga di wax ñuy wax nga diko ko dëggal Ousmane Sonko nek kuñ wara préserver Ousmane Sonko nek ñu wara jangal tay bravoure am sénégalais wara jangal tay constance am ak gëm-gëmbam ak dëggu gi mu dëggu ak bëgg bi mu bëgg Sénégal nga xam ne fii ak juróom fukki at dañ ko war a jàngal sénégalais yi fii ak cent ans ñu naan leen il était une fois koo xam ne Sénégal jaral na ko mu def grève de fin trente et quelques jours mësta dil au dos des sénégalais mësu koo nangu mësta wax sénégalais yi lu du dëgg chaque jour mu ngi jiital intérêt Sénégal ba fee mu tëdd tey looloo ko fa ba bu doon intérêt boppam jóge na fa kii war ñu war koo fësal war koo wane war koo jàngale pourquoi sénégalais bëggul ku baax ñu naan buñ ko tuddati Afrique sax waxuma la Sénégal àdduna bi ñooy rêvé am ku mel ni Ousmane Sonko africain yi di di ko bégee ñun ñi génn xam nañ ci dara ñun ñu nekkoon ci sous-région bi xam nañ ci dara tey ñun ñu am doom bu mel noonu tey ay nit naan waratuñ ko tudd ci plateau ndax dañ koo tëj kaso injustement ndax dañoo dissoudre parti am te ñooñu mel ni jànguñu histoire ñaata nit la ñu jaay doole dissoudre seen parti jaay leen doole tëj leen ci kaso tey jii ñoom ñoo téye àdduna bi lu waay bëgg a def ci ñoom ngay jaar ñaata doomu aadama mel ni amuloo xam-xam mel ni yow jànguloo pour man li ngeen war a xëlt te di ko mer mooy université bii Macky Sall tëj teg ko ci bakkanam xañ élèves yi ñu dem jàngi xam-xam te yéen foofu ngeen jaar ba tey ngeen doon li ngeen doon ñu xañ ko seeni rakk ngeen war def ko débat war ko mettitlu jeunesse bii ñu jël tey tëj leen ci kaso bi ñu war a defi examen ñu war a jàngi ñu war a liggéeyi Macky Sall tëj leen ci kaso bi jaay leen doole loolu ngeen war a def débat injustice bi ñuy teg ci kaw Sénégalais yi fichier bii tey nga xam ni ba Sénégal des Sénégal ku ko bëgg a jot da koy jot boo demee ci internet bi nguur gi xañ ko Sénégalais yi kenn mënul xam dara ci say mbir suñu liberté yi gën a primaire ñu ngi koy xañ yéen lii moo war a doon lu ngeen di mer au lieu que ngeen di mer quoi ñuy tudd benn sénégalais comme yéen waaye sénégalais boo xam ne li mu tekki ci réew mi ak li mu xeexal réew mi ak li mu jariñ réew mi ak fi ko réew mi teg tegu leen fa pourquoi ñuy invité waa Pastef du maanaam euh, mu ne du du yoon quoi waratuñ invité waa Pastef fi may daanelee nag nee dafa lim ay partie léegi foofu ngeen war a xamee ni Manam, nul ne peut défier la volonté populaire pourtant lim ngay ak ay mouvement ne ñooñu nous, wara tuddu a mais nit sont leen imposer ku ñuy tuddu ak ku ñu dul ki saf ak ku saful ku bëgg ak ku mais kay est s'entendent parler mais diw parti yi la wara tuddu quoi mais waratuñ tuddu parti bi ndax dañ ko dissoudre wa bi l'absence le plus présent pourtant nag bi ngeen koy dissoudre pour nit ñi fàtte moo taxoon pour nit ñi bu ngeen ko tasee dindi ay photoom tëj ko ci kaso bi léegi après dañ koy fàtte quoi le sénégalais est amnésique boobu dafa moor dafa dee sénégalais bii sénégalais wu ngor la sénégalais wu dëggu sénégal bu reconnaissant sénégal bu xam lan mooy njariñam sénégalais bu xam kan moo gën ci moom te askan wi nee nañ Ousmane Sonko moo gën ci ñoom kon loolu askan wi la kuy mere nag da ngay mere yàlla ci décision yu muy jël waaye du xam-xam tey nga ni waratuñu invité Birame Souleye wala Abass Fall wala El Mali wala wëreefa parce que Pastef lañ bokkoon te Pastef desulur nañ ko waa léegi ban code ban léegi ba pare Bassirou Diomaye fay lañ tànn léegi yow nangu nga ñu waxtaan ci bassiru Diomaye fay mais loolu contradiction la te Bassirou Diomaye Faye Pastef la bokk <laughs> léegi yow nañu waxtaan ci Bassirou Diomaye Faye waaye kenn waratul invité benn membre Pastef mais lan ban code la ak ban réglement ak constitution Sénégal ndax moom moo ne ku bokkul ci parti politique kenn waratul waxtaan ci say mbir wala ku dissoudre parti politique wala kuñ tëj kaso kenn waratul wax ci say mbir ñaata doomu lañ fi tëj Ousmane Karim Wade ñaata yoon lañ ko tëj ngeen toog di ci wax Karim Wade Karim Wade 2019 Khalifa Sall waxi nopp mais Ousmane Sonko daal c'est lui qui est l'exception moom tëj nañ ko ci kaso kenn waratul waxi mbiram dissoudre nañ parti am kenn waratul invité ku kon ci parti boobu. Bamba retire tes propos tuuti na trop waaw xawma loo ci jublu nag mais tuuti na trop trop trop trop kon nag gars yi lii laa ne woon damay ñëw wax ko ci waa ji waxim yi teggiwul dara xam naa ni sax sénégalais moom nekkuñu fi ngeen ne mais dañ leen di xamal ne rek seen wax yu tuuti ñu ngi koy dégg te buñ ko déggee dinañ leen remettre à votre place xamal leen ni du xam-xam Sénégal méritewul ay nit yu mel nii toog ci ay plateau plateau nu mu chere temps nu mu chéré di wax waxu dof ak waxu ñàkk fayda ak wax yoo xam ne da lay tuutal ak wax yoo xam ne pour jéem a yàq nit la respectez les Sénégalais et arrêtez d'insulter l'intelligence de Sénégalais tur bu màgg nga am mais xel mu tuuti nga am te na nga génn ci nga ne suul ker du ko teree feeñ suux lu mbër làng moom a ca gën muy bëre daan ngay ree Pastef mbirum sunu boroom la ngeen gën a partager gën a abonné le combat continue parrainage bi waaw ñu ñoqale rek jaa ngeen jëf